libération bi na ne taxawu Sénégal kay tapis rouge lañu laral Barthélémy Dias maire wu Mermoz Sacré-Cœur le soleil ak libération nañu def nañu inventaire moomeelu Sen TV te jox nañu gars àpp fanweeri fan ngir ñu tegu ci yoon libération ne notaire bi di maître Ndeye Lika Ba moo porte plainte Serigne Niang directeur général bu Global Voice ndaxte nee na waaji da ko àbb lu toll ci benn milliard ak ñett te lu ëpp ñaari at ngi muy topp ci ginnaaw ba tey ji France daal di xëdin tey ci kopparam waaw libération yéene kaa xanaa xamoon leen ni gars yi nañ ko juróom-ñaari fan ci yoru octobre bee ñu génn démb nag ñu yónnee waa huissier ak ay gendarme ngir xayma matériel u D-Média googe ñaata la toll inventaire ba bu Sen waaw te gis nga nag boo bëggee dégg bu gaan ngay dani léegi gars yi fanweeri fan lañ ko may maanaam weer 30 jours lañ ko may mu dem fay bu fayulee matériel u Sen bi ci boppam D-Média dañu koy nangu allahu journée libération yéene kaay ne coow am na de ci diggante notaire bi la maître Ndeye Li Kaba ak directeur général Global Voice ak marché yu ARTP yi Serigne Niang dama ne leen notaire bi maître Ndeye Li Kaba mooy topp Serigne Niang moome ngir wàllum ju njaaj escroquerie jaxa sooba daal jege na un milliard trois cent la ilaha illallah ay lii dëkk ne ay milliards rek milliards rek